waaw salaamaaleykum wa rahmatullah les patriotes maa ngi leen nuyu di leen ziyaara di nuyu Modou Modou Fatou Fatou askanu Sénégal jeune di Sénégal magum Sénégal magum Serigne Seck daaray yi askanu Sénégal jeune di Sénégal góor a jigéen ma nga ndaw maa ngi leen nuyu ànd ak suñu projet sa yaay Oumy Gueye waaw maa ñëw defaat vidéo bi macha allah ku nekk ak li la yàlla may dañ la koy nangul maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin ala kulli xaal xas gëwuma kenn ku dul yàlla yaakaaruma kenn ku dul yàlla te yaakaar naa ne xeex bi ba may wax ba tey ginnaaw yàlla yéen ngi teg seen bët waaye du man yàlla la defe naa bi ma fiy wax problème de Khalifa Sall ci digg législatif yi na gën yi am ci réseaux sociaux yi ñu naan Oumy Gueye bul yàq coalition bi bul yàq nangam lu yàlla yàqul mu def mënu koo yàq yàlla dafa yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mu jottali diine gi yónni Aboubacar Omar Ousmane Alioune ñu ànd ak moom doon saxaabaam Omar dëggu nag tàng ndax dëgg du neex gis nañ ne nag nag ni législatif yooyu Ousmane Ousmane Sonko sonn ba bëgg a dee ñu war ko législatif yi moo ciy xeeñ xoolal dama koy assumer législatif yi parce que alquranu karim dama jël sama assumer mooy xeeñ ci législatif yi billahi wallahi wa rabbul kaaba alquran laa gëm législatif yi sénégalais yi bu ngeen ci bañee am mbetteel ak sama koor gi bu fekkee li may wax du dëgg yàlla bu ma gont législatif yi ni ci Ousmane Sonko sonnee askan bi yëpp topp ko génn ko am nañu ci seen xol di jëx jëxi Ousmane war mooy njëg laayam yaayu askan an an tant que ànd ak suñu projet Oumy Gueye législatif yi patriote yi Dakar ngeen ko sécurité Abbas Fall yaa ngi may dégg Dakar sécurité leen ko li ñuy waaj Dakar li ñuy waaj Dakar Ousmane dañ ko bëgg a wor dañ ko bëgg a wor dañu bëgg a wor Ousmane du waxantu de te duñ ko seetaan système bi dafa yaatu diggi diggi buum baa ngi diggi géej législatif yi les patriotes ni ngeen engagé woo taxawu Ousmane nekk si biiram mu mel ni ay raba ki jënd ci ànd na ngeen taxawu noonu Dakar bureau de vote yi bureau de taxawu leen ko Macky Sall mi ngi Maroc loxoom a ngi pale Macky Sall mi ngi Maroc loxoom a ngi pale laa wax Ousmane duñ ko tayle de Ousmane duñ ko tayle de Ousmane duñ ko tayle Ousmane dafa sonn li mu sonn kenn sonn ko fi bu leen ma yëngal ku nekk ak la yàlla may xaw ma dara aw ma dara législative bi sécurité leen ko sécurité leen ko bala ngeen ci am mbetteel réseaux sociaux le patriotes Dakar sécurité leen ko am na lu ñuy pare sécurité leen ko Ousmane gagné ensemble bi moo ñi may jàmm Ousmane dañ ko yàgg waraan lu tax mu woo ministre de l'intérieur ñetti yoon deful lu Ousmane wax sécurité bi bureau de man duma waxantu duma waxantu ah askanu Sénégal nañ génn sécurité bureau de vote foofu laa yem am na ñoo xam ne dossier yoo xam ne seen dossier pare la ñu leen tëj te tëjuñu leen ñu wax leen dañ leen war a tëj ñu ne duñu leen tëj Macky Sall fii la wax daa am yoo xam ne may tëj sama ton conc sama gars yi patriote yi yéen laay waxal sécurité leen bureau de vote yi na génn sécurité bureau de vote nañ sécurité bureau de vote wax naa ko waxaat ko sécurité leen bureau de vote yi sécurité leen bureau de vote yi Dakar sécurité leen bureau de vote yëpp ku voté bul añi nañu yor suñu résultat à mai e ñun war mooy suñu njit laay ah. duma magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko te waxantuwuma waxantuuma sécurité leen bureau de vote yi Ousmane dafa sonn dafa sonn ñu ngi ko bëgg sacrifier bureau de vote yi sécurité leen ko sécurité leen bureau de vote yi naa ah, te duñ ko seetaan ñun fu fan rek ñoo koy war parce que alquranu karim te dinaa wax bu leen ma tax a wax sécurité leen bureau de vote yi dimanche ku voté bul dellu sa kër salaamaaleykum